waaw les yota les yota les yota comme ni ko di waxee sama mbokk burkinabé les yota xaalis moom fu mu am mbooloo daf fay bëri mbooloo du fa gëj de voilà ñoom ñoo ngi naqarlu affaire yi comme ni ko sama mbokk tijaan yi waaw les altopan les altopan tijaan ngam nga am ko toperek, toperek. rek toppe rek so rek soo waxee nu mer soo nu am lu rek rek lu nit ñi def nu def waaw ñoom ñoom seen xel bi daa mel ni ko duñ mais encore une fois réveillez les gars c'est normal ay cousins, leen du génn ay cousin c'est la même famille la c'est eux dans eux voilà c'est au plus qu'on understand et au plus con quoi ils font les cons ils sont dans rek démb defoon na fi intervention wax si mais comme gars yi duñ doon siisu di kii ma bàyyi wax ko mu seen ma dem concentrer aussi samay ñuuxi waaw parce que ba fi commencé def sen affaire du juma bi ñëw ki nak bam fi ne di ñuy toppe nañ bàyyi gars yi képp en plein corona en plein ki gars yi topato am nañ ay problème yu gëna important ñom nu baye ba corona ñëw ba mbass ñëw ba gars yi sonn ñu bëgg réfectionner juma alors que tout ce temps ils avaient le temps pour réfectionner la mosquée ils l'ont jamais fait baye nak ba corona ñëw ba gars yi tok ba gars problème na la c'est là maintenant qu'il trouve important maintenant de réfectionner la mosquée ah ba ma ko fii juñu mais comme que sénégalais mooy Le sénégalais bëggul ku koy sénégalais bëggul ku le tax ko ba mu le fi di le affaire xam nga ay wax expliquer mais c'était comme ça ah, hein? c'était comme ça quoi affaire yi moom comme nu ma ko waxee rek àdduna gi moom mooy loolu quoi ñun nootu Sénégal c'est le beau Sénégal c'est le pays de tous les faisabilités comme nu ma koy faral di waxee ma ne leen Sénégal gaañ billahi wallahi foofu ngay gis ni que nit ñi attan nenoo attan nenoo jël comme sama papa nu mu ko doon waxee jël ginaar xam nga jay ko ba mu xëy benn bis rek waaw daa di futteeku ne léegi moom day mbëkkee quoi loolu Sénégal la xewee foofu noonu lay xoyom xoyomee man instant gi nii nag sama problème mooy ana Kara Kara gars bëgg ne noo bëgg ne noo def ba nu fàtte Kara mais nu ne Kara Kara duñ la fàtte de Kara Kara le rat ana Cheikh Modou Kara le rat voilà Kara bëgg na nu faté ko dé mais Kara wax dëgg fa mënu mënuñu la faté Kara duñ la faté dé boobu ba légui ñongi tok di la xaar bo ba légui ñongi xaar tammi nguuru Sénégal fa lay mujjé délinquant yi mais déggaguñu suite da ngi def les petits trucs à à tap tap mon dos je ton dos je ne sais pas bras dessous bras dessus xoma ma nan laa ko mëna woy mais gaay ñom ñongi ñongi fo ak ñun waaw ba kanaa kenn leetul kenn firiwul moo ngi noonu nag di yolleeku ñoo ngi koy xaar boobu ba Abonnez-vous à la scène qui vous ressemble et qui vous correspond. Nyanjo Media Vision. L'œil du delta du Salou.